mbokk yeeg xarit yi tàmm di seetaan seen émission du dëgg du yoon te benn kaw agression lañ leen indil benn policier bu tudd bu Goudiaby moom la ay Samba Boy ko ci diggante yoonu caare géej bi di dem ginnaaw raay euh, xeex bu metti wutu si mais après mu jéem a jàpp kenn si ñoom muy sëy bu ndiir euh, bi mu taxawee nag si kanamu juge bi Moussa Goudiaby bi moom policier la dafa wax ne euh, bi mu jógee route nationale bi di dem ginnaaw raay pour ñibbi Icotaf Pikine Icotaf moom la ko moom la téléphone am bi mu sonné muy wuyu boobu la ko kenn si Samba Boy yi ku naan Soye bu Ndiir mbéj ko mbéjee après moom mu tourné yaakaar ne waa ji day caaxaan parce que bi ñu ko mbéjee portable bi dafa wadd mu koy foot nag waa ji nanga ko agression la ñoom ñaar ñu xeex xeex bu metti ndekk nag ñoom juróom lañu woon ñeent yi ñu nekkoon si ginnaaw bu ñu xamee ni sëy bu mbir euh, Moussa Goudia bi mi ngi koy malmené mi ngi koy dóor dóor yu metti ñoom si lañu ñëw pour atte moment bi ñuy atte nag ñu jëlaale portable waa ji benn bi nga xam ne daf ko defoon ci poche ginnaaw bi ak benn bi nga xam ne dafa woddoon waaye comme que waa ji policier la te jàng na xeex ci formation moom mu ciblé si rek euh, sooy bu ndiir bu koy dóoree dóor yi metti après mu daw dawee dugg si biir benn kër euh, waa kër yi ñëw di atte moom mu won leen kartam wax ni kii da doon ko agressé te daf ko bëgg yóbbu police gars yi jàppale ko ba mu yóbbu ko police ginnaaw raay keroog nag dañoo taxaw à la barre kanamu président tribunal bi Moussa Goudia bi ni lii ma wax waaye sooy bu ndiir moom dafa bañ ba daanu suuf def na rek dafa rombanteeg waa ji épaule am laal laal laal épaule bi Goudia bi nag jàpp di ko dóor ñeneen ñi moom daanaka dañoo dañoo feelu daal dañoo feelu sëy bu si li mu wax waaw nee ñoom dañ doon dem di reer ji bi ñu demee di reer ji far restaurant bi tëj bi ñuy retourné daal lañu giir la ñu xeex bi léegi nag ñu ñëw di àtte après noonu lañ leen convoqué police après ñu jàpp leen yóbbu procureur bi nag nee moom yu mel ni dafa war a dakk si Sénégal parce que ay xale yi ndaw yi nga xam ne diggante vingt deux vingt trois vingt quatre ans saa ñu dem wuti ji liggéey liggéey daan seen doole mais dañuy fekk nit ki nga xamee ne dafa liggéey alalam ba pare ñu jàpp ko daan dañu koy agressé nee na loolu moom dafa war a dakk looloo tax euh, requérir na un an de prison ferme pour ñoom ñëpp euh, euh, avocat wu bi nag moom mooy maître Malick Mbengue moom li mu wax moom mooy client am di di Abdou Lahad Ndiaye ki nga xam ne dafa bokkoon ci groupe bi moom def ne amul benn yoon bi nga xamee ni parti civile muy policier bi Moussa Goudia bi dafa tudd turam wax ni moom dafa bokk si agresseur yi moom agressé wul mosul agressé xamul nu ñuy agressé loo tax si loolu ñaan président tribunal bi pour mu bàyyi ko mu ñibbi euh, këram président bi nag daq na àtte bi ba le 16 le 16 novembre moom la ñuy joxee délibéré bi. su boobaa dinañ xam ndax euh, agresseurs yi dinañ leen tëj wala tëjuñu leen wasalaam